ànd jéggalante. jéggalu suñu borom. jéggalu suñu borom. ci lépp lu ñu yëg ak lu ñu yëgul. ci lépp lu ñu yëg ak lu ñu yëgul. lépp lu ñu tey ak lu ñu teyul. lépp lu ñu tey ak lu ñu teyul. xam nga ab jaam de lu ma def te ay jaam rek lañu. mais ab jaam ay jaam rek lañu. te ab jaam du mat. te ab jaam du mat. kon nag noo ngi tuub. nee na kon nag noo ngi tuub. tuubaalu jullit yëpp. tuubaalu jullit yëpp. tuubaalu dëkkandoo yëpp. ak dëkkandoo yëpp. di baalu xaq ñëpp itam. baalu xaq ñëpp itam. di baalu xaq ñëpp itam. di baalu xaq ñëpp. te di leen xamal ni. di xamal ni. nit bu amul lu lenn. nit bu amul lu lenn. war na war na ko fullaal. war na ko fullaal. war na ko faydaal. war na ko faydaal. war na caa jëm jomam. war na caa jëme jomam te loolu mooy lislaam rek lan am. nee loolu mooy lislaam rek lan am. diine lislaam ji rek. moom lan rawee ku moom. moom lan rawee ku moom. ku moom. ku ci bokkul ku ne. nee ku ci bokkul ku ne. te loolu waxaluñ ko suñu bopp. ne la waxaluñ ko suñu bopp. yàlla moo ko waxal boppam. yàlla moo ko waxal boppam. inna diina inda laahi al islaam. inna diina inda laahi al islaam. diine fa yàlla moom. diine fa yàlla moom. mooy lislaam. mooy lislaam. yeneen diine ju mu doon. yeneen diine ju mu doon. ku mu neex nga def ko sa diine. nee na ku mu neex nga def ko sa diine. waaye boo demee fa sunu borom da nga xam ne du diine. waaye nee na boo demee fa sunu borom da nga xam ne du diine. moom la ñu taxaw lislaam diine fan yoo xam ne waxoo fi laa xamante ne xaasiran nee na jëpp diine ju man nit mën a nekk. nee na jëpp diine ju nit mën a nekk. ju dul lislaam. ju dul islam. boo dikkee fi man. boo dikkee fi man. fi moom yàlla suñu borom fi moom yàlla suñu borom. ak perte rek nga fay fekk. nee na ak perte rek nga fay fekk. ak perte nag jërëjëf ñee kenn. nee ak perte nag jërëjëf ñee kenn. kon nañ fulaal diine ji. nañ fulaal diine ji. te fonk ko. te fonk ko. te jàng ko. te jàng ko. te jéem koo xam. te jéem koo xam. te jéem koo jëfe. te jéem koo jëfe. ci la suñu lépp nekk. ci la suñu lépp nekk. li ci des lépp. Eh, li ci des lépp. suñu yoon nekku ci. suñu yoon nekku ci. moo nu ko warlul ñoo moo nu ko moo nu ko warloon. moo te am wàll du booy. te wàllam du booy. ñu ne bu nu booylee. mais ñun nag bu nu booylee. nooy ñàkk. nooy ñàkk. kon dara jëru ko. loolu dara jëru ko. fonkaat lislaam ji. nañu fonkaat lislaam ji. te jàng ko. te jàng ko. jàngal ko gone yi. jàngal ko gone yi. te yar leen yarub julit. te yar leen yarub julit. jàngal leen alxuraan. jàngal leen alxuraan. jàngal leen xam-xamu sariha. jàngal leen xam-xamu sariha. jàngal leen fiq. jàng leen fiq bañ xam lu baax xàmmee lu bon bañ xam lu baax xàmmee lu bon xam lu ñu war a xam lu ñu war a def ak lu ñu warta def xam lu ñu war a def ak lu ñu warta def loolu mooy diine nee eh, loolu mooy diine kon nag nañ ci dellu te fonk ko nee kon nag nañ ci dellu te fonk ko tamaasu ci tuub nee tamaasu ci tuub tuub googi nag nee na tuub googi nag ñun ñëpp ci war a maase ñun ñëpp ci war a maase waaye man maa ci raw nee na waaye moom moo ci raw mi ngi tuubal yàlla suñu borom. sëñ bi nee mi ngi tuubal yàlla suñu borom. di tuubaale jullit yëpp. nee na du tuubaale jullit yëpp. te ñaan ñu tuub. nee na tey ñaan ñu tuub. te xam ne lu nu dal rek noo ko teg suñu la bindee. nee na waxtu la bindee. xéewal la jàmmal la. xéewal la tax nga fàtte ko. ba tax nga fàtte ko. mu la boppam. nee na mu fàttali la boppam. boobaa maanaam tooñu la yaa sa bopp. nee na boobaa tooñu la yaa tooñ sa bopp. kon noo tooñ suñu bopp. kon noo tooñ suñu bopp. nan tuub te dellu ci yàlla. nan tuub te dellu ci yàlla. te muy dëgg ci nun. te xam ne li ñuy tawat li ñuy tawat li ñuy soxal wax lépp. te xam ne li ñuy tawat ak wax lépp. dara mënu ko faj lu dul loolu. nee na dara mënu koo faj lu loolu. kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara. yonent bi tànnal boppam. yonent bi tànnal boppam. ak yonent ya ko jiitu. ak yonent ya ko jiitu. yónni leen jox leen ay waxam. nee leen. yónni leen. jox leen ay téere. jox leen ay téere. ñuy diglee ka téere. ñuy diglee duñ ko yokkal duñ ko wàññil. te duñ ko yokkal duñ ko wàññil. te mu digle. ñoo jaar lu mu digle. taxul. taxul ñu mën a yóbbu ñëpp ñu mën a yóbbu ñëpp ñi am tawféexi baax rek ñi am tawféexi baax rek te gëm li ñu wax te gëm li ñu wax ñoom lañ mën a yóbbaale ñoom lañ mën a yóbbaale loolu nag ku ko xam neen loolu nag ku ko xam boo xam boo gisee bu la yàlla tawféexalee bu la yàlla tawféexalee nga am njiit lu mel ni sëñ Touba nga am njiit lu mel ni sëñ Touba waaye waroon ko jéem a roy néew laay war nañ koo jéem a roy te te yem ci moom te yem ci moom te gëm ko te gëm ko te yàlla tax te yàlla tax te topp ko te topp ko lii xew nag nee na lii xew nag ñun ñëpp ñun ñëpp. bu kenn xeeb sa ñaan. bu kenn xeeb sa ñaan. na ñëpp tuub te ñaan. na ñëpp tuub te ñaan. yàlla jéggal nu. yàlla jéggal nu. te teggil nu ko. te teggil ko. teg ko ci àdduna bépp. teg ko ci àdduna bépp. bu daloon ci mennum réew rek. ne bu daloon ci mennum réew rek. julli yëpp war a ñaan. julli yëpp war a ñaan. bu daloon ci benn gox. bu daloon ci benn gox. julli yëpp war a ñaan. julli yëpp war a ñaan. waxuma la mu daj àdduna këpp. waxuma la mu daj àdduna këpp. kon nag. dana kon nag. loolu ku ko woyofal. loolu ku ko woyofal. da nga amul xel rek. da nga amul xel rek. ndax xamoo fu mu yem de. te xamoo mu yem de. te ki koy def nag lu ko neex def. te ki koy def nag lu ko neex def. bu ko neexee. bu ko neexee. mu tukkal lépp benn yoon. mu lépp benn yoon. te bis boobu dana ñëw. nee na bis boobu dana ñëw. te xamuñu kañ la. te xamuñu kañ la. xamuñu fu waxtu bu mu koy def. xamuñu waxtu mu koy def. kon nag. nee na kon nag. ku ku topp mbambax mi. ku topp mbambax mi. ak yëngutu bi. ak yëngutu bi. ak baraayu nit ñi. ak baraayu nit ñi. ba mu nax la. ba la. ah da nga koy de. nee naa da nga de. ah li li ma xumb xumbu nee li ma xumb benn su benn minute képp. benn minute képp. bu ko bu bëggoon lépp ni teg. bu bëggoon lépp ni teg. dara du yëngu. dara du yëngu. kooku mat naa ragal de. nee na kooku mat naa ragal de. mat naa wattandiku mat naa wattandiku mat naa sàmm ay ndigalam. mat naa sàmm ay ndigalam. mat naa daw ay tereem. mat naa daw ay tereem. kon nag. nee na kon nag. nan fàttaliku. nan fàttaliku. sunu borom. sunu borom. te dem ci ndigalam yi. te dem ci ndigalam yi. te daw tereem yi. te daw tereem yi. te sax ci. te sax ci. te xam ne sunu sëriñ bii de nun. nee te xam ne sunu sëriñ bii de nun. nun murid yi. nun murid yi. ñun woo mosunoo woo ci lenn lu dul yàlla. mosunoo woo ci lenn lu dul yàlla. mosunoo jëmale ci fenn fu dul ci yàlla borom. mosunoo jëmale fenn fu dul ci yàlla borom. kenn mosu koo jëm kenn mosu koo gis mu jëm ci fenn ci yàlla borom. fu dul ci yàlla borom. kenn mosu koo gis mu jëm fenn fu dul ci yàlla borom. du ci ay waxam. nee du ci ay waxam. du ci mbindam. du ci mbindam yitteem du ci jëfam du ci jëfam du ci ñam yar du ci ñam yar lu su tawee na ñëpp ci tool na ñëpp dem ci tool bu leen xaddi bu leen dem ak ndimbalam ak na yàlla barkeel ñëpp yàlla na yàlla barkeel ñëpp xéewalam yi dul jeex. xéewalam yi dul jeex. te du ko jëriñ te du ko jëriñoo. te du ko jëriñoo. jaamam ñi rek a tax. jaamam ñi rek a tax. yàlla nañ ci yàlla wàcce lu doy sëkk. yàlla nañ ci yàlla wàcce lu doy sëkk. te roof ca nag. te roof ca nag nu bañ a bew. nu bañ a bew bañ ko fakk. bañ koo fakk te jaamoo ko ko. te jaamoo ko ko tam daj ñëpp. tam daj ñëpp. maa ngi ñaan ci yàlla suñu borom. maa ngi ñaan ci yàlla suñu borom. xéewal yi xéewal yi ci àdduna ak ci àllaaxira. xéewal yi ci àdduna ak ci àllaaxira. yàlla ci julli yëpp ëppale. nee na yàlla ci julli yëpp ëppale. rawee na ci Sénégal. rawate na ci Sénégal. te ngeen góorgóorlu. nee te ngeen góorgóorlu. noo ngi ñaan fu mu toll nee noo ngi ñaan fu mu toll ci lu ngeen lu ngeen yëgul ci lu ngeen yëg lu ngeen ndax seen toogaay yi seen toogaay yi sëñ Tuubaa rek la ko yàlla may de moo tax ngeen def ko de waaye du ndof waaye du fayda du ñàkk fayda duñu ay buurit nee duñu ko yéene doon mukk seen moroomi taalibe rek di jëw di sëñ di jëw di sëñ di liggéeyal sëñ bi bi ngir yàlla waaye duñ fakk mukk de waaye duñ fakk mukk allah rabbi incha allah yàlla na yàlla dimbali yàlla mi amee xéewalam yàlla mi amee xéewalam yàlla na ko wàcc kanam ak gannaaw yàlla na ko wàcc kanam ak gannaaw ñi ne ci réew mi ñi ci réew mi ñi ci bitim réew ci bitim réew fu ne yàlla na la fa yàlla fekk ak jàmm fu ne fu ne yàlla na la yàlla fekk ak jàmm ak sëkk mu dox mu dox leen kanam dox leen gannaaw ba kenn du soxlaa dem fenn loolu ñu wax ñax ne loolu wax néegum ñax ak sàkkatu ga tax ak ñaan yàlla suñu borom noo ko yàlla seetal ci suufu Sénégal fépp ba duutu am fenn ba duutu dëkk tabax yi ñu bëgg. ñëpp dëkk tabax yi ñu bëgg. ak terrasse yi ñu bëgg. ak terrasse yi ñu bëgg te am jàmm juñ ci nekk. am jàmm juñ ci ci nekk. am wërsëg yàlla. yomb na yàlla yàlla na ko yàlla defal. ndem ñu ko du jaamu la ase nun. ase xaddi buñ daw. nan sax ci lu baax rek. nan sax ci lu baax rek. maa ngi nuyu ñëpp nag. nee mi ngi nuyu leen siyaare. lii rek la bëggoon a feddali. waxtu wu ne. waxtu na di. lépp lu mu yéene sama. moom la yéene taalib yëpp. moom la yéen a julli yëpp nee na moom la yéen a julli yëpp te lépp lu ma lépp li ma wax bu dul dëgg ci man nee na li mu wax bu dul dëgg ci moom yàlla xam na ko yàlla xam na ko bu dee dëgg ci man yàlla xam na nee na bu dee dëgg ci moom yàlla xam na loolu yàlla ma ko yàlla fay nee na yàlla ko ko yàlla fay bu nekkee sama xol bu nekkee ci xolam ma ànd ko yéen bokk ko yéen ci àdduna ak àllaaxira ci àdduna ak àllaaxira jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mbacke yaa